jërë ngeen jëf ku aayewal sa moome la ñu wax bëccëgu tey gi ñu jagleel jigéen ñi réew mi yéenekaay yi xëy nañu di leen ko walle ba mu mokk journal bu xëyewul jigéen ñi xëy nga ci jigéen ñi soleil national ñëw ak ñun ci président national mi jël ay engagement ngir lu gën a dooleel nekki ne jigéen ñi réew mi ubbil yéenekaay bi démb la woon ci am ndaje mu waa ministère de la femme gonte woon ci esplanade bu Grand Théâtre liggéey bi njiit réew mi Macky Sall a jaar mënal mu di autonomisation de la femme ak entrepreneuriat féminin soleil national nañu la tënkee ci assise moom la doon jébbal njiit réew mi démb fa la xamle ab plan d'action bu tënku ci ñaar fukki projet yuy soxla lu mat ñaari téeméeri milliards yéenekaay bi dañu xibaar ne président de la république di Macky Sall xamle na fa ne ci ndajem conseil des ministres bi ñu war amal tey ji dinañu fa jël ay mesures yu am solo ngir lu jëmale kanam nekkinu jigéen mi jigéeni réew mi ak fa ñu joxonte woon daje démb mu di ca grand théâtre bu Dakar source wa nañu président Macky jël na fay engagement ngir gunge jigéeni réew mi ba ñu mën a jot seenub cër ci wàllu entrepreneuriat l'observateur nañu mobilisation dof la gis démb ca grand théâtre ay junniy junniy jigéen ñoo jóge fu nekk ci réew mi ñëwoon wuy si docteur Fatou Diané Guèye Seynabou Guèye mi gouverneur bu Fatick l'observateur nee nañu moo doon jàng démb gëstu bu yaatu bu mu def ci bëccëgu tey gi tuddee ko spécial 8 mars daje na ca gëstu ba ak soxna Ayda Njong waxtaan ak moom dem na seeti jigéen ñi liggéey ci train express régional bi gise na ak soxna Zahra Iyane Thiam mi jiite ASEPEX l'observateur dem na seeti jigéen ñi dëkk ci dëkk bii di bopp coor ga ca Ndar waxtaan ak ñoom ci seenub coono mu di ñàkkum ndox ñàkkum courant ñàkk barab bu ñu mën a faju ak marché bu baax ca dëkk ba dëkk beneen mu di fii ci Ndakaaru jigéen ñi fi yeewoo tey yeewoo ci mbedd mi ndax ñàkk fu ñu fanaan lépp ngi ci l'observateur ginnaaw l'observateur yéenekaay yeneen yu xëy jagle seen xëtu njëkk bëccëgu tey gi ñu jagle jigéen ñi mooy la Sénégal bés bi le jour Sud Quotidien Le Quotidien La Tribune lii Quotidien ak journal Vox Populi soxna yi ñuy roy ci réew mi di leen bàkk ak kañ ndax seen wayu rafet wu ñu am ci réew mi ci ñoom la journal La xëy Vox Populi moom xëy tànn ñeenti jigéen di ay mère de famille yu bokkul lu ñuy liggéey bokk ci ñoom soxna sii di madame Adama Seck di kuy gérer ay toilettes publiques madame Lo Awa directrice artistique lañu ñu cay daj Le Quotidien dañuy wax ne lu jëm ci xeex àq ak yelleefu jigéen ñi ñoo nga ca waaye des na ay jéego yu bare bari bu doonub yéegle yéenekaay bi gis na ne la ca des dafa kawe lool ci kaw loolu nañu xus dugg ci politique bi Boubacar Camara ak i kàddoom ñoo nekk ci xët mu njëkk journal L'Info moom Boubacar Camara mi ngi xam ne ci yéenekaay bi ne droit nit ñi ak liberté nit ñi ni ñu yàqoo ci nguuru Macky Sall musuta am ci Sénégal Sénégal ak li ñu fi nemmeeku ci politique bi mi ngi ci enquête yéenekaay yëral xët mu njëkk journal ñu bari ñoom li ñu xewal léegi mu di sullu ay mbóot ki ci nee nañu xewit woowee nga xam ne ci presse bi lañ ko daan gis léegi politiciens yi ñoo nga ca mu di lool ni mu leen mën a defarale noo leen la leen mën a yàqale ki ay mbiram xeeñul neex libération nee nañu moo di journaliste bi di Pape Ndiaye yéenekaay bi nee nañu ma nga ca kaso ba juge bu deuxième cabinet moo ko mandat dépôt démb juróom benni tuuma la koy toppe ñu topp kaa bi fekkaat ko ci journal Le Mandat li yéenekaay bi bind mooy borom émission reliquat ba ñu dese ca CNG ba ku ci nekk ci ñoom am na loo CNG bi dagg rëg-rëg CNG bi dagg na ko 780 mille Sa Thiès ñu dagg ko 1 million 120 mille bu dee fale yam mu sedd ndax sunu làmbu xëy na dañuy xibaar ne bu weesoo koppar yooyee CNG bi dagg ci seen reliquat ñoom ñaari mbëri war nañu leen auditionné tey ji ci suba ci CNG bi te daan yu diis mi ngi leen di yot abonné leen ci suñu chaîne youtube